الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار مكيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi fàttali sunu bopp di fàttali jaami yàlla yi asaaru sirk wa adraaruhu lii di bokkaale jeexital yi muy def ak ay loram xam ngeen ne tey lim nu nattoo mooy lu néew ci nit ñi ñoo dul bokkaale ñu néew ci jullit yi ñoo dul bokkaale lu tax ñu ëpp ci ñun di bokkaale mooy dañoo xamul lan mooy bokkaale nit ki lu mu xamul du ko mun a moytu ñaareel bi mooy bokkaale dafa sew yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ashirku axfa min dabibi nam la yonent bi nee na bokkaale moo gën a sew tànki xorondom tànki xorondom melentaan bu ñuul boobu tudd xorondom ala hajarati sawda mu nekk ci xeer wu ñuul fii zulumati leyl mu nekk ci xaaju guddi mu tegale ñett yu ñuul moom dafa ñuul mu nekk ci xeer wu ñuul mu tegu ci xeer wu ñuul ñu ne la xoolal tànk yi ndax di nga ko gis ndax di nga gis tànk xorondom bi noonu la bokkaale yonent bi noonu la nee na noonu la sewee looloo tax tey ci biir société bi ngay gis ñooñu ñu naan buxaaba wala ñu naan leen maaman seeni publicité bëri ci rajo beeg télé bi mbooleem nag ci xeet wi ci góor a jigéen mag ak ndaw lu dul ku yàlla namm laa aar ñépp ay jokk ku nekk mooy wax say problème ba gaa yooyu ñii ñu leen di génneloo ay sarax yoo xam ne xaru benn melo lañ lay wax yenn saa yi ñu tuurloo leen deret sangoo leen ko yenn saa yi sax bal nit ñépp ci deret jooju diw ci kanamam léeg-léeg ñu def loola mooy yàlla boo xam ne yow sa géeru dund sa aduna yàqu na ak sa yow sa dara dootul baaxati lan moo ko jar mooy ñàkk a xam bokkaale mooy lan mbokk yi bokkaale lor yi muy def ci njëkk mooy daafu taazimu rab kii bokkaale du màggal yàlla mukk yàlla dootul rëy ci xolam ak xel dootul faale yàlla taazim daaf taazimu rab wa mahabbatihi fi qalbi saahibihi kii bokkaale dootul bëgg yàlla ci xolam dootul màggal yàlla bal sax suñ ko nee yàlla nee na day mer wa ida zukira allahu wahdahu iz mazzat qulubu alladina la yuminuna bil axira borom bi ne fa ida zukira min dunihi fa ida hum yastabsirun mbokk yi ki bokkaale dootul màggal yàlla bëgg yàlla day xat ci xolam day suufee bu ñu tuddee yàlla kese sax da ngay gis kanamam lëndëm loolu la yàlla wax de am na ci ñoo xam ne tey ci xeet bi bu ñu waxee yàlla day gis ñëpp mer léeg sax doomu aadama yi ñu ne non kii dafa dof moom yàlla rek lay wax yàlla dafa dof yàlla rek lay wax bu ñu demee ba société bi ku gëm yàlla dof la bëgg yàlla dof la ku ne man li yàlla wax rek lay def dof la fan lañ jëm ndax am na ku gën a màgg yàlla ndax ku am yàlla ñàkk nga dara wallahi ku amul yàlla amoo dara ñaareel bi bokkaale di def mooy sukuutu saahibi yi boromam lu mu kawe kawe kawe kawe day day daanu day suufee ndax yàlla moo ko wax wa man yushrik billah fa kaannama xarra min alsama borom bi nee na ku may bokkaale mu ngi mel ne ku ñu yëkkati ba ci kaw asamaan ku picc yi jàpp say mbagg naaw ak yow ba kaw asamaan bàyyi la awee ku jóge kaw asamaan borom bi nee na ngelaw lu yóbbu la aw tahwi bi hirri ngelaw lu yóbbu la ba place boo xam ne kenn xamul du mu toll mu daaneel la ci ay montagne yu xeer borom bi nee na bokkaalekat noonu la mel lu mu kawe kawe kawe ci daraja dañ koy gis muy dem ci ay bàmmeelu guddi di sulli ay néew te borom daraja la di damm ci yéex yi néew yi wala muy jël ci mbalaanu néew yi léeg-léeg nga sang néew ba pare ci ci ci benn morgue nga sang néew ba pare nga gis ku ñëw naan la waaw damaa soxla ci witteen yi wala damaa soxla ci mbalaan mi wala damaa soxla ci kawari néew bi ñu koy doyee moo tax ñi nekk ci morgue yi di sang nañu bàyyi xel ne bu ñu sangee ba pare buñ fa bàyyi sax saabu bi wala njàmpe bi wala gants yi ñu soloon nañ jël lépp gas ba mu xool suul ko ndax am na fi ay bukki yoo xam ne loolu rek mooy seen mécc ku dee rek dañuy wër lu jóge ci moom benn ci yére yi wala ci yaram bi wala ci liñ ko doon sangee koy dee xam ngeen dañ ci xërëmi ji nga gis kooku lu mu am martaba am martaba day dugg bois sacré te borom dara jàlla de moo tax yàlla mu ne fa kam annama xarra min assama waa ji dafa daanu jóg ci place bu kawe xoolal nit ak ni ko yàlla bindee su demee bay takk ay béjjën takk ay lam ñuul di raay ay xeer wala muy raay ay foto xoolal ni ko ko yàlla kaweele woon moo tax yàlla ne summa radadnaahu asfala saafiliin ñetteel ci bokkaale lor yi muy def ginnaaw ba mu tuutilee ngëm yàlla ci sa xol dootoo bëggati yàlla ginnaaw ba mu la daanalee dootoo am personnalité ñetteel bi mu lay def mooy bokkaale kat sobe la yàllaa ko wax de innamal mushrikuuna najas yàlla nee na ku may bokkaale rek yéen sobe sobe nga salal da ngay gis koo xam ne dafa bëgg dara ñu ne ko booy julli bul jàpp boo demee wala bul wisu boo amee janaaba bul sangu 40 jours boo ko defee li nga bëgg di nga ko am nga gis waa ji di ko def di dugg ci jàkk te du sangu janaaba ndax lan ndax am xaalis ndax am ndomba tànk benn buñ ko war a takkal wala ndax am daraja wala waa ji nga xam ne dafa ñëw ci xëramkat bi ne ko dama bëgg xaalis mu ne ko waaye boo ko amee da ngay def safara de mu ne ko bëgg naa da ngay dem safara mu ne bëgg naa yow koy defal ma ma am rek mu ne dama ngay jël ginaar benn melo mu dem indi mu ne dama ngay indi boolu ndox mu indi dama ngay indi boolu dugub mu indi dama ngay indi ay mat ak almet ak pétrole mu indi ñu daal di taal matt yi ba mu tàkk ñu yeewi ginaar gi takkal ko benn téere ginaar gi daal dem ci lekk gi lekk ba suur dem ci ndox mi naan ba màndi dugg ci safara si lakk ba jeex takk téere bi def ñu jël téere bi jox waa ji ne ko demal li nga am xaalis waaye ni ginaar gi lakkee yow mal xiyaam nii ngay lakkee mun a bëgg naa fa lan toll léegi est-ce que dëgg-dëgg réellement ñun ay jullit lañ kon ngay fekkee doomu aadama yi ñuy rendi ay xar am na ñoo xam ne sax du ñu rendi xar mi mais dañ koy bàyyi ci biir kër gi di ko yar xar mi kenn du ko laal xar mi fa lay nekk ci kër gi mooy xar yooyu ngeen dégg ñu naan xaru sarax xaru bokkaale la xaru xërëm la fi lañ koy bàyyi ci kër gi kenn du ko laal kenn du ko laal ba xar mi xëy dee parce que diine la borom bi nee na bokkaale kat sobe la c'est parce que yëpp sobe lay def day julli ci day ay deru xaj di julli ci ay deru mbaam di rendi ay mus yu ñuul di sangu ci ay deret di bàyyi ba guddi ba nit ñi tëdd muy dem ci ay carrefour sëlëbe yoon di fa sangu di fa teg ay nen di def yu kenn xamul mu yàlla moo tax mu ne bokkaale kat sobe la jullee tamit day sonal boppam mbokk yi ci yàlla ñeenteel ci lor yi bokkaale di def annahu yujibu li saahibi azabullah fi dunia wal axira borom bi ne li yuazib allah almunafiqina walmunafiqat walmushrikina walmushrikat bokkaale kat bokk na ci lor yi muy am yawmal qiyam mooy yàlla dina ko mbugal aduna mbugal ko alaxira balaa yàlla di ko mbugal a alaxira ci aduna la ko yàlla di njëkk a mbugal day toroxlul ay moroomam bàyyi boroomam dootu am respect ku ko gis xeeb ko parce que ab bokkaale kat yàlla dina wàcce martabaam ci aduna alaxira yàlla dugal ko safara borom bi ne noonu laay mbugale yow naafiq yi góor yi ak naafiq yi jigéen yi waaye ak bokkaalekat yi góor yi ak bokkaalekat yi jigéen yi juróomeel ci lori bokkaale an al mutalabbis bihi yusiu zannu bi rabbil alamin allahu akbar bokkaalekat day ñaaw njort ci yàlla du rafet ci yàlla njort koo ko fekk li muy foog ci yàlla lu bon la du foog ci yàlla lu baax pourquoi ah man de bu ma bu ma nekkee nii di julli di ñaan du ma am dara waaye naa def sacrifice bi rek rafetul njort ci yàlla bi ma jàngee ba léegi génn aw ma li ma bëgg dem naa fu nekk ñaanal nañ ma sottiwul comme nee nañ ma bu ma defee sacrifice bi dinaa naa ko def naa dem ci armée li sulli néew yi naa damm yaxu néew wala naa def nangam naa rey ginaar kii naa rey muus mii naa dagg sama benn baaraam wala sama benn nopp wala sama baaraamu tànk wala naa rey sama doom wala naa rey sama yaay wala naa rey sama baay dégg nañ ko foofu léegi am na ñoo xam ne dañuy dox ci mbedd yi takk takk ay gàllaaj kër bu ñu dugg bu liir bu fa liir nekkee day dee ñu ne la boo reyee nangami liir di nga am alal ñooñu buñ duggee ci hôpitaux yi dañuy rey liir yi buñ duggee ci dispensaire suñ dem dañuy reyaat xoolal loolu toll ñun foofu ñun ay jullit ñu ne ñun ay jullit la boo duggee ci suñu oto yi oto yëpp gàllaaj la baar yi ci oto yaa ngi accident boo duggee ci kër yi kër yi jànn wàllu kër yëpp buntu kër yi ay bëjjën la fa nekk boo lambee ndiggi nit ñi ndiggi nit ñi ndiggi nit ñi amaana sax bu police ñëwoon léegi contrôle jumaa ji ñuy làmb ndigg yi ñu fekk ku toog di déglu xutba bi fekk ngi takk ngan di bëjjën billahi wala fu ñu jëm oto yi buntu kër yi nit ñi liggéeyukaay yi wala liggéeyukaay yi foo nekk gàllaaj bu dégg bëccëg xoolal léegi borom gàllaaj yi ni ñu amee alal parce que nit ñi xam nañ loolu lañ gëm foo tourné nit ñaa ngi dem di seet seet wala seetkat déggoon ngeen soxna soosu doon seet léegi millionnaire la 40 personnes laay seet par jour personne bu ne 10 000 francs ñaata la te ku lu salaire un ministre sax mooy yóbbu salaire xoolal 40 personnes par jour personne 10 000 francs par jour un mois ñaata la ah moo tax mooy 5 gis ku tabax R plus 5 R plus 4 nangam 4 4 sambaay commencé xoolal ñi la doon sees kenn aajoom fajul waaye yow moom sa aajo day faju moom moom da ngay changé waaye ki la doon sees ki nga joxoon gàllaaj bi xool ko ba léegi foo ko fekk nga jëriñ ci lépp gis nga dafa gëmul yàlla kii bokkaale dafa ñaaw njort ci boromam jàppul ne boromam dina ko may dara comme boromam du ko may ne dem defal boppam moo tax ay mbiram du baax juróomeel mbokk yi juróom-benneel anna talabbusu bihi yuqiul fard wal mujtama fi zulumaat mutaraakiba sax ci bokkaale lan lay def ci société lan lay def ci individu yi lan lay def ci société bi ci mbooloo mi mooy da leen di dugal ci lëndëm bu tegaloo duñu ci génn xoolal Sénégal ni mu nekkee ci lëndëm jàpp nañ ne mbir mi ci changé ay gouvernement la abadan mbir yi ci iman la nekk ci ngëm yàlla foofu la yàlla tënk mbir yi walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard yàlla nee na nit ñi bu ñu ma gëmee rek ma ubbi xéewali yi asamaan ak xéewalu suuf dund gi daal di am barke mais tey xam ngeen ne ku waxal yàlla xam ne yàlla dafa dindi barke Sénégal barke moo amatul ci àddina bi barke barke lépp la yàlla dindi li ñuy lekk xam ngeen ne amatul barke neexatul dund gi xataa sax léegi xale yi da nga koy gis mag ñaa ngi dañ naan ah léegi xam ngeen ne tabaski neexatul ngeen ne léegi korite neexatul lu nekk xam ngeen ne neexatul lu tax parce que yàlla dafa dindi barke bi xataa xaalis bi xam ngeen ne yàlla dafa dindi barke bi dana am ñu ne la xaalis bi amatul valeur parce que yàlla moo dindi barke bi ci sunu dund la yàlla dindi barke bi lu tax parce que ngëm moo fi am yàlla dafa indi sorte ne su fekkoon ne nit yi réew yi gox yi gëm nañ ma yàlla nee na ma ubbi xéewali asamaan ak xéewali suuf barke bi daal di dajaloo nit ñi daal di dund ci amn ak nasaar aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafur الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله asal shirk mbokk yi bokkaale jeexital yi muy def moom bokkaale bàkkaar bu rëy la azamu zunub moo gën a may rëy ci bàkkaar yi moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne du ma ko baalaate doomu aadama mun na njaaloo ëllëg yàlla baal mun nga fen ëllëg yàlla baal mun nga sàcc mun nga rey nit sax ëllëg yàlla baal waaye wallahi boo deewaale bokkaale yàlla du la baal azamu zunub suila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam an aadami damb laaj nañ yonent bi ñu ne ko waa bàkkaar yi ban bàkkaar moo ci gën a rëy mu ne an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak mooy nga wutal yàlla ndend te xam nga ne yàlla la bind yàlla la bind nga utal ko keneen moroom loolu tax tribunal bi gën a rëy ëllëg yowmal qiyaam diggante yàlla ak ginne ak nit ñi bokkaale moo ko waral loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na ëllëg mën ak nit ak ginne am nañ tribunal bu rëy ngeen defe ne jaam ñi ku taxaw ak yàlla ci kanamu tribunal kan moo lay àtte yàlla kan ngay layool yàlla est-ce que di nga am avocat abadan lan moo tax tribunal boobu yàlla taxawal ko mooy yàlla nee na axluqu wa yubadu gayri man yàlla maa bind ñu bàyyi ma jaamu keneen yàlla moom bind bàyyi nañ xool tey wala ñu jaamu yàlla rek julli jàpp loo ko ñun jaamu yàlla julli kese lañ koy def julli maa ngi dem jumaa maa ngi dem julli ji fajar maa ngi dem julli ji tak tisbaar tak sa julli rek jàpp nañ ne après mooy diine bi jeex na waaye sa dund gi yàlla waxu ci sa dund gi yàlla waxu ci te ibaada di ko borom xam-xam yi di firi dañu ne ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu llah wa yardaahu min al aqwali wal afaali aw il amal alzahira wal batin jaamu yàlla du julli kese jaamu yàlla aw dundin la ni may dundee loolu mooy jaamu yàlla amoo droit sol sa dàll bi fekk xamoo ban dàll la ñu war a njëkk a sol amoo ci droit booy sol dàll sax da nga war a xam islam ban dàll la war a nga war a sol ñaari dàll boo ko xamee ban la la lislaam wax nga jiital ndeyjoor nga doog a dugal ndeyjoor bi sooy sol sa yére bi daf laa wax ban loxo mooy njëkk a dugg sooy sol sa tumee ji mu ne la ban tànk mooy njëkk a dugg waaye ñun fii dañuy bule rek ku la neex ku nekk def lu nekk la def kañ ngay xam ne daal yàlla am na julli jot waaye sa dund man ni may dundee lu may liggéey li may lekk li may naan kan laay sël su ma amee xew nan laa koy xewe su may dox ci mbedd mi nu may doxee su may wax nu may waxee ah loolu yow loolu yoonu yàlla nekk ci de yow yàlla daal man mun naa la jullil yow am naa yeneen yi nag vraiment yow su ma ko toppee damay tardé du ma am dara waaye ma rek ëllëg bu ma defee lu ma neex ba pare su ma ñëwee rek ma ne la tuub naa la dugal ma aljana ñëpp noonu la ñuy jullee jàpp ne diine ji dañuy làmbatu fekk diine julli kese aw dundin la su ngeen jàngee téere bi ñu yëkk jàngal fekk Sénégal boo xam ne boo wàccee alquran balaa ngay def dara dañ naan dama nga jàngi sharia téere bi ñu leen njëkk jàngal mu ngi tudd laxdari soo demee téere da nga fay fekk ñu ne la wala yahillu lahu an yafaala fi'lan hatta ya'lam hukma allahi fii amoo droit yow julit nga def dara lu dul balaa nga koy def da ngaa war a laaj lan la yàlla wax fii nag da ngay def ba pare da ngay bëgg benn xale bu jigéen nga ñaan ñu may nga ëmbal ko après nga bind lettre kii di waaw man dinañ ko wóor dañ nañ ëmbal naa ko léegi nag lu yàlla wax le médecin après la mort dañuy bàyyi ba nit ki dee ñu daw yenu ko yóbbu hôpital après lu ci docteur bi mën balaa mu doon dee lañ ko waroon daw yóbbu mu sabab amma def li ngay def ba pare di laaj lan la yàlla wax léegi après bu ñu la ko waxee ne def nga ko ba pare kon fokk ñu delluwaat jàngaat suñu diine xamaat li yàlla bëgg ñu nekk ci ñu xam li yàlla tere ñu sori ko waaye bu ñu jàngul diine lu nekk lañu def moo tax gis nga ci ñaan yeeg ci julli yeeg ci lépp da ngay gis ay bidaa ak ay bokkaale ak ay aada ci julli yeeg tout ak ci jaamu yàlla yi néew na tey jaamu yàlla bu ñuy def te ñett yi du ci nekk bokkaale bi ci nekk bidaa bi ci nekk aada bi ci nekk ñeneen néew na laa wax néew na néew na fooy dem doo fa fekk bidaa doo fa fekk aada doo fa fekk sirk néew na bu ñu rëccee ci bidaa bi bu ñu rëccee ci bokkaale bi bidaa baa ngi leen di xaar bu ñu rëccee ci bidaa bi aada baa ngi leen di xaar ndeysaan léegi sax da nga naan dégg doon naa dégg benn imaam naan aadatul bilaadi saarat sunnatun muakkada mu ne aaday réew mi léegi sunna la bu ko deful bokkoo foog ñu def ko lii kat lañ fi fekk lii la ñuy def waaw loolu ngay dégg ah ñun kat lii lañ daan def paa bi lii la doon def ah maire bi lii lañ xam ñun kër gi lii la ñu xam loolu la ñuy def au lieu ñu ne yàlla lii la wax de dañ naan waa kër gi lii la ñu xam léegi ana li yàlla wax bokku julli dina leen delloo suñu xel ci diine nan leen delloo suñu xel ci yàlla nan leen tuub dama nekk ay jullit jéem a jàpp ci li yonent bi indi jéem a àttewoo li yàlla tabaraka wa taala wax ñaar yooyu rek mooy mbir mi yàlla yonent jeex na amul keneen a ku ci gëm ne keneen tamit mu ngi ci bàyyi ba nga dugg bàmmeel wallahi di nga xam ne kooku bokk yàlla yonent amul keneen biñ ne ashhadu an la ilaha illa allah lu mu ci teg wa ashhadu anna muhammadan rasul kon amul keneen te teg nañ ci keneen te buñ ci keneen moo tax bi nga juddoo loolu la ñu wax ci say nopp bi julli jotee ñu jàkka ñi loolu la ñu nodd loolu la ñu liqaam sooy taayee ci julli gi ñoom ñaar ñooñu ngay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasul boo duggee bàmmeel ñu ne la waaw waa jooju nga doon wax nag muhammad moom mu ngi nii nag loo wax ci moom kay nag léegi xamoo ko woon nag ana keneen foofu nga doon wax ana leneen loolu nga jàppoon ana xërëm yooyu jeex na yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañu yàlla wan neen وارزقنا الطريق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مرة جميلة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم mbokk ci yàlla dafa am benn daara bu nekk fii suñu wet xale yi fii la ñuy jullee sax seen mbaar bi ñuy jàngee dafa rab ba commencé daanu mun a tuddee ndox mun a tuddee naaj borom daara ji waxoon ñu ko dañ ko sàkkul ci mbokk julli di ndimbal ku ko mën a defar baax na su fekkee kenn mun ko defar ñun ñëpp yu jëm cee jàpp ku nekk li nga am buñ ko dajalee amaana mbaar moom xale yi di jàngee quran buñ ko defaree nga am ci tiyaab ku ko mën a defar tamit insha allah boo ñëwee ñu booy laaj mbokk boobu pour ñu jëm leen defar qumu ila salatikum yarhamkum